projet bi ñu indi fii tey Thiès projet la boo xamante ne que gouvernement du Sénégal moo ko taxawal structure bu ñu wax kuréel bu ñuy wax Union européenne moo ko financé Union européenne bu ngeen xoolee dafa jàppale gouvernement bi Sénégal lu bari ci wàllu justice bari na ay tribunaux yoo xamante ne que Union européenne moo leen créé donc Union européenne day yëngu lu bari ci financement lépp lu jëm ci wàllu justice donc projet bii nii pour projet la boo xamante ne que projet bi bu ñu koy wax ci français mu ngi tudd projet d'appui au renforcement de structures et mécanismes d'arbitrage spécialisés dans la conduite des affaires donc projet la boo xamante ne que li ko tax a jóg mooy ñu ñu fexe ba nit ñi acteurs économiques yi opérateur képp kuy yëngu ci wàllu économie ak képp kuy population nga xam ni que am na fi ay kuréel yu fi yu fi nguur gi teg yoo xamante ne que seen seen seen seen mbébét du lenn lu dul saafara ay jafe-jafe ci diggante ay ay ay ay opérateur wala ci diggante population yi loolu moo ko tax a jóg donc projet la boo xamante ne que cabinet bu ñuy wax cabinet Grand Orson moom moo koy moom moo koy moo koy moo koy jëmal léegi dafa am ñaari pàcc ci projet bi benn bi mooy dañ waroon saytu kuréel yi ñu fi teg pour xam lan mooy seen seen force seen faiblesse lan mooy seen seen doole lan mooy seen euh, i seen i seen i tolof tolof pour ñu mën leen a wutal ay saafara ay saafara seen jafe-jafe yooyu pour que ñoom ñu mën a seen liggéey gën a mën a ñoom donc deuxième partie bi mooy ñu wër ci Sénégal parce que Union européenne dafa xam ni que ci biir Sénégal parce que Sénégal du dakaar kese donc ci biir Sénégal bari nañ ñoo xamante ne que kuréel yii ñu fi teg pour saafara seen i jafe-jafe ñu ci bari xamuñu ko. donc beneen pàcc bi ci loolu lay yëngu mooy wër ci ci biir dëkk yi gox gox goxaan yi pour waxtaan ak population yi dajale leen acteurs économiques yi ñëpp ñu dajale leen ñu nekk ci secteur informel wala ñu bañ faa nekk ñu structuré wu ñoom ñëpp ñu dajale leen xamal leen jumtukaay yii yi existé wax leen tamit nan la ñuy def fan la ñuy jaar ba mën a am acce ci jumtukaay yooyu parce que boo ngeen xoolee moom la présentation yi di présentateur yi di def ñu nekk ci biir salle bi waa waa maison de justice waa observatoire ñoom ñëpp dañuy joxe sax ay fiches yoo xamante ni ku ko bëgg a ku bëgg a jëflante ak ñoom dañ lay wax ni que fiche bi wala boo ñu woowee ci numéro bi numéro vert mën nañoo jëflante yow nga wax ñu lan mooy sa problème ñun ñu fexe nuñ nuñ ko saafaraa donc projet la boo xamante ne que mooy li ma wax pàcc bii dafa am solo trop parce que mooy ñu xamal population yi euh, ni que lii jumtukaay yi existé na nan tamit lañ koy jëfandikoo moo tax ba ba léegi dañoo fii Thiès moom la ñuy xaw a mujjee mooy avant dernière étape bi avant ñuy ñu ñu ñuy jeexalee Dakar mais dem nañ Ziguinchor dem nañ Saint-Louis dem nañ Kaolack dem nañ Tambacounda wër nañ région yëpp avant ñuy moo si Thiès. modalité alternative nag boo ko déggee du lu compliqué suñu moomeel la loo xam ne ñun ñoo ko moomoon ci suñu maam mooy waxtaan waxtaan bu juba waxtaan ba trouver solution. dafa nekkoon nag ay mécanismes yoo xam ne dafay yàgg nekk mais nit ñi xamuñ ko nit ñi di gën a ñëw ci juridiction yi di di gën a di gën a di gën a jaar police di gën a jaar gendarmerie alors que état bi teg na ay institution yoo xam ne seen objectif du dara lu dul boole nit ñi ñu waxtaan ba ñu trouver seen propre solution ci kaw loolu ci la état bi instauré li ñuy wax justice de proximité justice de proximité nag li koy jëmmal mooy maison de justice maison de justice ni ko population bi di war a di di fa war a demee loi bi da koy yombal dañoo def def telle sorte que même boo bindut sax même boo jàngul nga nga jël sa tànk rek dem ba ca maison de justice ba wax leen seen sa problème ñoom ci boppam ñoo lay formaliser yow li nga bëgg def woo kii nga séqal coow li taaj leen waxtaan ba solution boo yéegee à niveau supérieur y a ce qu'on appelle l'OPCF l'OPCF nag benn organe la bu nekk au euh, ministère des finances objectif am du dara lu dul lépp luy jafe-jafe ci wàllu finance mooy contentieux financier que mu nekk ci secteur port ci assurance ci banque ñoom yoon da leen may ay euh, loo xam ne boo fa ñëwee dinañ mën a régler sa problème te li nga fay amee tamit day nekk kayit gu dëgër goo xam ne dina mën a tax yéen li parce que li ci ëpp solo mooy xuloo bu amee juboo am te juboo boobu li ko mën a indi mooy toog waxtaan mooy conciliation bi ñuy wax nii mooy médiation bi ñuy wax nii bu ko defee kii war a fay fay kii ñuy war a fay mu jot xaalisam en plus ñu continuer nag seeni relation commerciale boo xoolee maison de justice amul compétence boo xam ne dañ ne fii lay yem excepté la matière pénale matière pénale procureur de la république moo ko yor bu weesoo loolu lépp loo xam ne ci diggante nit ak nit la li ñuy jëflante ba coow am ca maison de justice mën na ko regle bu bu weesoo maison de justice même même même ci wàll jëf jëf li nga xam ne procureur daf ci am wàll am na lu ñu fay wax lu ñuy wax médiation penal médiation pénale dañ koy def ci ci parke ba lañ koy defee maanaam fa procureur nekk fa lañ koy defee te loolu parti dañ ko war a xam bu ñu ñëwee lu mel ne abus de confiance maanaam euh, jafe-jafe yoo xam ne tax na nit ku ñu dénkoon wala ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu loo xam ne daal mën na tax ba nit ki la mu waroon fay fayu ko boo ñëwee ci procureur de la république te mën ngaa fay li ñu lay toppee nga ne ko au lieu que nga may interroger ci PV man je préfère ñu def médiation pénale donc même bu dee loo xam ne maison de justice mënu koo def bu ñëwee ci procureur de la république mën na def médiation penal boobu noonu. bon il faut comprendre que les usagers sont sont sont sont divers hein parce que je je disais que le public cible pour l'organisation de ces de ces journées c'est tous les opérateurs économiques et financiers, mais tous les, les banques, les assurances, tout le monde est concerné, y compris même les populations. chaque jour, eux, ils fréquentent l'une des structures là. L'une des structures, c'est des structures qui sont fréquentées quotidiennement. Il n'y a pas un jour où les maisons de justice ne reçoivent pas quelqu'un. Il n'y a pas un jour où l'observatoire n'a pas été saisi sur des questions financières ou sur des questions d'assurance. Il n'y le tribunal de commerce n'est pas saisie sur un contentieux entre deux structures. Donc ils sont saisis quotidiennement parce que c'est des structures qui ont été créées, certaines depuis 2009, d'autres en 2010 et en 2014. Donc c'est des structures qui ont été créées depuis longtemps mais qui sont méconnues des populations. D'où l'organisation de ces tournées régionales. On fait des tournées régionales, nous faisons des tournées régionales de sensibilisation sur l'existence de ces structures et mécanismes et sur l'appropriation par les, par, par, les populations donc de, de, de, ces modes alternatifs de règlement des différends. Donc il faut reconnaître que le Sénégal dispose donc de prérequis pour la promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Cela se caractérise par des personnes ressources qualifiées, des structures existantes que je viens de citer, parce qu'il y a des structures à caractère public et une structure cadre légal, cohérent et quasiment parfait. Mais maintenant, malgré l'existence de ces prérequis, donc il faut comprendre que le règlement extrajudiciaire, extrajudiciaire n'est pas totalement ancré dans la vie des opérateurs, dans la vie quotidienne des opérateurs économiques, en raison de certaines insuffisances qui ont été notées dans la promotion euh, des stratégies donc de, de, de, de développement de ces modes alternatifs. Donc ce qui fait que c'est la raison pour laquelle nous organisons un peu ces journées de sensibilisation, ces tournées régionales, pour sensibiliser davantage sur l'utilisation de ces modes alternatifs. Voilà, merci. Euh, je suis Bande Diop, médiateur des banques, des systèmes financiers décentralisés et, des, de la poste. Alors, à l'entame de mon propos, je voudrais d'abord remercier chaleureusement les autorités administratives et locales qui ont rendu notre visite euh, Alors, pour dire que nous séjournons au niveau de la région de Thiès, euh, du 24 au 28, euh, cela s'entend bien sur la région de Thiès et la région de Durbel, pour venir faire la vulgarisation des méthodes alternatives de de différends ou de conflits. En ce qui concerne la médiation financière. Euh, elle est encadrée par euh, l'État du Sénégal à travers le ministère des Finances et du Budget. Elle se répartit en deux médiations. Une médiation bancaire, euh, la médiation des banques, des systèmes financiers décentralisés et des services de la poste, mais aussi une médiation des assurances. Et notre rôle, se basant en tout cas sur l'arrêté 2256 qui organise la médiation financière, c'est de régler à l'amiable les conflits qui peuvent survenir dans l'écosystème financier. Ces conflits euh, pour les banques concernent en général impact en général sur la mobilité bancaire, par exemple les certificats d'engagement ou de non-engagement, les questions de débit à tort, euh, les questions en tout cas de remboursement de crédit. Parfois, une, euh, en fait, un client peut prendre un crédit et éprouver des difficultés pour rembourser, ou bien en général les contestations euh, d'écriture. Pour ce qui relève aussi des assurances, il y a ce qu'on appelle l'IARD, c'est-à-dire l'assurance incendie, accident ou bien risque divers. Donc c'est des problématiques en général euh, qui gravitent autour de l'écosystème financier Et nous souhaitons que ces problèmes soient réglés à l'amiable. Parce qu'en général, quand on va au tribunal, ça crée ce qu'on appelle une séparation, parce que le juge, euh, il rend une sentence. Alors qu'à notre niveau, nous, euh, nous organisons une réunion de médiation qui met en musique euh, les deux parties et nous les aidons en tout cas à trouver une solution. Si c'est pour les banques en général, C'est une solution euh, qui respecte les conditions bancaires telles que édictées par la BCAO. E Donc globalement, c'est ce que nous sommes vulgariser au niveau de au niveau de Thiès. Et en dehors de la médiation aussi, il y a ce qu'on appelle la conciliation. Euh, aujourd'hui, la conciliation médiation est organisée aussi par décret et au niveau des de la au niveau du tribunal du commerce, effectivement, en tout cas pour permettre surtout le désengorgement des dossiers. Aujourd'hui, les juges font dans la conciliation et la médiation. Il y a aussi l'arbitrage qui est aussi un autre procédé de règlement de, de, de litige hein, qui met en, en pratique euh, deux parties, deux sociétés, deux entités morales et qui choisissent en tout cas de s'élire un tribunal en cas de difficulté. Les cas les plus fréquents, en tout cas, c'est les questions de débit à tort. Par exemple, tu peux aller, tu peux arriver, euh, tu peux aller dans un guichet électronique, euh, commander ou bien demander de l'argent et in fine ne pas recevoir et être débité sur son compte. Tu peux prendre un crédit comme par exemple aujourd'hui, euh, en perspective les cas qu'on aura dans la zone de Bakel avec la montée de la crue du fleuve, vous allez voir des agriculteurs qui ont pris en tout cas des crédits au niveau des, des institutions financières et qui ont été rattrapés par la crue, malheureusement qui n'ont pas récolté et aujourd'hui qui seront dans des difficultés pour en tout cas rembourser les, les, les crédits. Ah, dans ces cas-là aussi, euh, nous travaillons à avoir une restructuration du crédit. C'est-à-dire au lieu en tout cas de respecter l'échéancier tel que décliné tout à fait au début, nous trouvons une solution qui permettra en tout cas Euh, de soulager euh, le client et aussi euh, de faire l'affaire, en tout cas, de l'institution financière. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les méthodes vexatoires de remboursement de crédit. Parfois, tu prends un crédit et tu perds ton emploi. Ça, c'est des questions sur lesquelles aujourd'hui euh, nous, en tout cas, nous, nous, nous, nous évoluons. C'est des questions que nous réglons. au niveau de la médiation, de la médiation euh, financière. Oui, par rapport aux assureurs et accidentés, bien sûr. On a ces cas, par, par, parfois euh, dans la circulation, il peut arriver qu'il y ait en tout cas euh, un accident et que, euh, le, et que la personne qui conduit le véhicule disparaisse. En général, euh, si on monte un dossier, euh, nous, à notre niveau, nous allons essayer de travailler à à orienter en tout cas l'accidenté, au niveau, soit au niveau du fonds de garantie automobile, même au niveau en tout cas euh, des institutions qui traitent de ces questions-là. Il peut arriver aussi que tu, euh, tu, assures ton immeuble contre une incendie ou bien que tu fasses euh, euh, une bien que tu souscris à une assurance et en cas de problème que tu aies des difficultés pour la réparation du véhicule, pour la réparation des locaux. En général, ces questions-là, nous les traitons aussi au niveau de la médiation des assurances. Mon nom c'est Papa Diabel Ndir. Je suis président de chambre à la Haute tribunal de commerce de Dakar. On est venu à Thiès pour vulgariser un, le mécanisme dit euh, euh de la conciliation, euh, médiation, arbitrage. Donc c'est des mécanismes euh, alternatifs par rapport euh, à la juridiction, à la saisine des juridictions. Et c'est des mécanismes dont la durée de traitement est plus ou moins courte, mais aussi efficace, et qui va permettre aux opérateurs économiques d'atteindre le même objectif qu'au niveau des juridictions. Parce qu'on a constaté que le traitement judiciaire du contentieux commercial, euh, suivant tout toutes les étapes de la procédure peut durer jusqu'à 5 ans, depuis la première instance en passant par la Cour d'appel, et juste euh, devant la Cour suprême ou le CCJA. Donc c'est des procédures longues et très coûteuses. C'est dans cette optique que des organismes comme euh, l'APIX se sont rendus compte que c'est un peu des obstacles par rapport à l'investissement, ce qui a fait naître la loi instaurant d'abord le tribunal de commerce. Et dans cette même loi, il a une disposition, l'article 5, qui rend obligatoire la conciliation. Ça veut dire que si une partie saisit le tribunal de commerce, euh, le juge a l'obligation d'abord de, de passer par la conciliation. Et quand je parle de tribunal de commerce, il faut comprendre qu'à travers tout le pays, au niveau de chaque juridiction, au niveau de chaque tribunal de grande instance, il y a une chambre commerciale. Et cette chambre commerciale applique le même dispositif que le tribunal de commerce. Donc à Dakar, par rapport au volume du contentieux, c'est ce qui a fait qu'on a créé une juridiction commerciale spécialisée. Mais cette même spécialisation existe au niveau des tribunaux de grande instance. Euh, à travers le tribunal de commerce, il a aussi les maisons de justice qui remplissent les mêmes rôles. Il a aussi l'OQCF, qui est une, euh, un organisme logé au niveau du ministère des Finances et dont la spécialisation est la médiation financière. Et qui dit médiation financière euh, parle de contentieux bancaires, de contentieux d'assurance et des contentieux aussi dans le monde portier. Donc toutes ces catégories de contentieux peuvent être réglées au niveau soit des maisons de justice, soit de l'OQICEF, soit au niveau des juridictions commerciales, mais dans la phase contentieuse. Donc c'est l'objectif qui nous anime aujourd'hui. C'est pourquoi on est venu au niveau de la région de Thiès. Euh, euh, euh, euh Ce n'est pas seulement le, la, la, région de Thiès, mais il y a aussi la région de Djurbel, les autres euh, départements. Donc pour euh, faire ce qu'on appelle une vulgarisation, une information à l'endroit des opérateurs économiques pour, pour qu'ils s'approprient de ces modes alternatifs de règlement des litiges. En effet, c'est pourquoi même on a, on, a, on a impliqué les juridictions parce que l'engorgement du rôle du tribunal est connu de tous, ce qui impacte un peu sur la durée de traitement des dossiers. Et cela fait partie de ce qu'on appelle des process de notation pour voir la compétitivité euh, et l'attractivité du pays par rapport aux investisseurs extérieurs. Très important, parce qu'il faut toujours, même au niveau des contrats d'investissement que vous voyez, même au niveau des contrats, au niveau euh, des banques, au niveau des assurances, on leur fait obligation d'inclure des clauses de médiation préalable. Donc toutes ces institutions-là ont l'obligation d'abord de procéder à la conciliation avant d'en venir à la phase contentieuse. En effet, en effet, c'est pourquoi on est là. <laughs> Il est, il, est, il est très rare de voir euh, le juge sortir de son, de son bureau. Donc on a senti cette nécessité, cette proactivité. Donc c'est une obligation. parce qu'on est dans, dans, dans l'ère de la communication. C'est pourquoi on s'est on s'est on, on fixé comme objectif parce que c'est pas la première réunion, on a fait pratiquement cinq régions avant de venir à Thiès et l'objectif première, c'est de toucher le maximum de d'acteurs économiques, de personnes ressources, mais aussi de les inviter eux-mêmes à s'approprier de ces modes alternatifs de règlement des litiges.